tey mooy ñetteelu journée. Mhm. mu am fii ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop nekk ci Thiès. Mhm. muy dimanche 3 janvier. Mhm. deux mille vingt et un tey nag ñu am au programme quarante quatre chevaux répartis en cinq catégories tey mool yi nga xam ne ñoo daw sànq mooy mool yi nga xam ne dañu am ñetti at muy PTA yi ñu nekkoon ne neuf partants doon daw distance u euh, mille six cent cinquante mètres bi ñu dawee ba teer ki nga xam ne mooy jël premier mooy numéro huit bi di Lat Fatim mi ngi raw ci temps deux minutes vingt et un secondes deuxième bi nekk ki nga xam ne mooy le numéro trois muy Amine troisième bi nekk nag ki nga xam ne moom mooy le numéro cinq Marie Pierre quatrième bi nekk ki nga xam ne mooy le numéro quatre di Karim cinquième bi nekk le numéro un di jigéen sixième bi nekk fas wi nga xam ne moom mooy sanu sàll mu nekk nag rawante boo xam ne ki nga xam ne mooy favori bi di expert ak njëkk ñëwuñu mm. waaye Lat Fatim moo doon jël troisième mm-hmm. tey moo wane ne ñaari favori yi ñëwuñu mm-hmm. mu raw deuxième course réservée au PDA les poulains de deux ans neuf partants pour une distance de 1200 mètres. Numéro 1, Eliman, propriétaire Major Diak, jockey Fallou Diop, corde numéro 6. Numéro 2, Ndey Famader, propriétaire Yabalder, jockey Saliou Kobar, corde numéro 2. Numéro 3, Escobar, propriétaire Moustapha Hachem, jockey Mohamed Sissoko, corde numéro 8. Numéro 4, Yassine Sogi, propriétaire Awa Diouf, jockey Serif Badian, numéro 1. numéro 5 Kirène propriétaire Ibo Kolle Bawo jockey Saliou Seck corde numéro 7 numéro 6 Binta Sy propriétaire Ndeye Sokhna Diop jockey Yamar Gaye numéro 3 numéro 7 Black Moussa propriétaire euh, propriétaire Penda Niang jockey Alassane numéro 4 numéro 8 Amsa propriétaire Abdourahmane Agne jockey Modi corde numéro 5 numéro 9 Assirou propriétaire El Hadji Samba Diagne jockey Abdou Diop corde numéro 9 9 partants pour une distance de 1200 mètres que le meilleur gagne dans le fair play et dans un esprit chevaleresque ki ñuy tabb favori mooy Yacine Sogi moo raw première journée bi waaye am na gan yu seet si ki nga xam ne moo jëloon deuxième bi booba Fall ñëwul mm. waaye ki nga xam ne moo jëloon troisième ñëw na ki nga xam ne moo jëloon quatrième ñëw na. El Hadj Omar génn nañu génn nañ ci starting block yi. ñu nekk neuf partants war a daw distance su euh, mille deux cent mètres. ñu ngi jàkkaarloog ñun El Hadj Omar ñu ngi jàkkaarloog ñun. nga xam ne moo jiitu ci kanam. mooy fas bi nga xam ne mooy la numéro 5. le numéro 5 mooy Kirène Kirène moo jiitu. Kirène moo jiitu ci kanam El Hadj Omar. Kirène nag xale bi ko war moom mooy moo mooy moom mooy euh, moo war Kirène. Saliou Seck waaw Ibo Kole Baaw moom waaw Ibo Kole Baaw moom moom Kirène. waaye Kirène ñëw nañ ci kawam. El Hadj Omar dañoo gaaw xel yi dafa gaaw xel yi dafa gaaw ba pare euh, dese naa leer tuuti. Mhm. numéro numéro bi naa leer. waaw ki ren euh, nañ ko nag. El Omar. Hmm. fuub nañ ko. Hmm. waaw. waaw. Assirou Assirou moo nekk en deuxième position El Omar. waaw waaw Omar. dañoo lang rek Amadou Diallo dañoo lang waaw dañoo lang dañoo lang fi mu nekk nii léegi ñu ñu am huit cent mètres El Hadj Omar euh, léegi nag bouclé nañ li nga xam ne mooy mille mètres li El Hadj Omar tourné nañu tourné nañu bu ñëwee waaye ki nga xam ne moo nekk en deuxième position gis nga ko El Hadj Omar hmm. waaw ki Kirène ah, Kirène moom li ci kanam. li mu raw sori na li mu raw sori na premier numéro deux le numéro deux. le numéro deux Ndeye ah, Fama Der. Ndeye Fama Der deuxième le numéro neuf. ah Ndeye Fama Der le numéro neuf Assirou troisième le numéro quatre. Ah. Euh, Yacine Sogui. Mm. Yacine Sogui moo jël troisième El Hadji Omar. Ndey Fa Ndey Fatma Der. Ndey Fatma Der bu yabal Der. moo jël premier moo jël premier. moo jël premier jokkoo bi ko war numéro deux. jokkoo bi ko war mooy Saliou Kobar. loolu buñ ko waxee xel yëpp dem ci Njàmbur. waaw xam nga daw na première journée bi box yu beekul. waaw waaye tey gis nga ko. Ah, moo ñëw. Ah, ñëw nag euh, jël li nga xam ne mooy premier. Mm-hmm. jokkoo bi ko war mooy Saliou Kobar. Saliou Kobar a ko war Saliou Kobar moo war ki nga xam ne mooy Ndey Fatma Der. tey faale la ñuy dalal ci fi nga xam ne. mooy ñetteelu bëccëg bi waaw faale xam nga yéen yi da ngeen di partenaire ñi nga xam ne ñooy comité national de gestion des courses hippiques tey ana yan kàddu ngay sànni ak lan la la euh, DG euh, Lat Diop yabe tey nga ñëw tey ci li nga xam ne mooy troisième journée bu comité national de gestion des courses hippiques du Sénégal d'abord Diallo damay commencer nuyu téléspectateurs 2STV yëpp hmm. di euh, souhaiter public bi yëpp une bonne et heureuse année ci kaddu directeur général Lat Diop. mu nekk euh, moom tam koo xamante ne ku ku ku ku fonk public bi la. ku hmm. fonk clientèle bi la. waaye tam aussi ku yéene CNG des courses hippiques la ñu di leen euh, fàttali ne tam aussi moom li nga xamante ne moom moo bokk ci ay projet majeurs yi bokk na ci développement de la filière équine hmm. xam nga jàlloo il faut ñu ñun ñëpp ñu accordé wu ci benn fait que li nga xamante ne moom la galop di organiser ci hippodrome yi nekk ay Vincennes mhm. nekk Longchamp mhm. nekk feneen ak feneen ak feneen lu mën a sotti la fii ci suñu réew. Euh, maa ngi lay nuyu Saliou. waaw fay maa ngi lay fay. dañu bëggoon nga ñëwal ñu ci rawante bi tey ndax xam nga. ki nga xam ne mooy Ndeye Fama Der dawoon na première tournée bi. waaw yàlla dogalul mu génn. ndax dafa am panne mécanique bu amoon. tey naka nga rawante ak euh, ñi nga xam ne mooy Assirou ak Kirène. ah damaa xool père ma xam ni maa leen man mhm. loolu tax mu wut boo départ jub door ko mu génn waaw loolu tax fas wi te te tey moom fas mu mën a mhm. fas mu mën a moom loolu tax ma loolu tax ma am confiance door ko mu génn yow fan nga dëkk maa ngi dëkk Niagara Grosse ñaata at nga am maa ngi am dix-huit ans yow yow euh, ñaata at a ngi yaa ngi war Saliou man depuis 2016 ba léegi maa ngi war ban écurie nga nekk maa ngi écurie kii nu mu tudd Jili Mbaye. ah Jili Mbaye. waaw Jili Mbaye. Jili Mbaye ndam lii lan la def ci yow tey. ah kontaan naa de moom trop. ndax man gën naa raw. waaw waaw moo tax tey ndam li moom damaa kontaan bu baax a baax. kañ nga yaakaaroon ne ci ngay war fas wi ban ban heure nga ko yëg. na ma na ma kaay posé. bi. waaw ci biir bi. nga nga rawante daal di raw. waaw ma rawante daal di raw. yàlla dafa mën a lan ngay wax say papa ak sa yaay xam nañ sa papa entraîneur bu la. maa ngi leen sant bu baax a baax mhm. jàppale nañ ma bu baax a maa ngi sant. xaw mhm. ma seen fay. Mhm. waaw. waa ñetteelu course bi El Hadj Omar. muy groupe 3 bi. ñu nekk. huit partants war a daw distance su deux mille deux cent mètres xam nga course la boo xam ne course bu ubbeeku la ndax première journée bi suudu moo raw waaye deuxième journée bi distance bi seen distance de prédilection la muy deux mille deux cent mètres ki nga xam ne mooy baax euh, bu Pape Moussa Thiam ñëw raw tey mooy troisième journée bi nekk na course boo xam ne El Hadji Omar course bu ubbeeku la tey euh, ñu war a daw deux mille deux cent mètres waaye nag xam nga fi El Hadji Omar dañuy am taxaw seetlu euh, deuxième journée bi bi xam nga suudu moo raw waaye deuxième journée bi ki nga xam ne moo raw mooy baax deuxième bi nekk suudu troisième bi nekk Mambo King bu maître Moussa Mbacké quatrième bi nekk Dolli cinquième bi nekk Bel bu Abdou Khadir Mbaye waaye tey am na euh, Mami Ndawa dafa ñëw seet si mhm. waaye tamit taxawaa poulain mm. de trois ans la mm. ñu surclassé ko mm. mu ñëw ci li nga xam ne mooy groupe trois bi boo gisee mu daw si fi mooy not B not C la am moo tax mu daw si si mooy fas bi nga xam ne moom mooy moom mooy mami baawo ñoom ñaar dañ leen surclassé ay poulain de trois ans lañ mais not C bi ñu am moo tax ñu indi leen tey ñu ñëw daw si fi nga xam ne mooy ci groupe trois bi mu nekk course bu ubbeeku ñu nekk nag li nga xam ne mooy huit partants war a daw distance su deux cent mètres génn nañu ci bopp nañu Pape Dia. ñu nekk mën nga toog mën nekk huit partants war a daw distance su deux mille deux cent mètres xam ngeen nag euh, tey euh, nekk na course bu rëy a rëy. Amadou Diallo waaw écurie Lamba Faar moo nekk ci kanam. Mhm. ki nga xam ne moo jiitu mooy numéro huit bi. Ah, muy mami mami mhm. mami Bao. mami Bao moo moo jiitu ci kanam. Mhm. numéro sept bi moo mooy Darou Rahman. Darou Rahman moo nekk en deuxième position. waaye nag ki nga xam ne mooy taxawa mi ngi ci biir groupe bi. ki nga xam ne mooy bel mi ngi ci biir groupe bi waaye xam nga tey ki nga xam ne moo nekk kenam mooy Daaru Rahman Daaru Rahman ak Doli Daaru Rahman ak Doli jaam Amadou Diallo waaw Amadou Diallo aja demal baax ak Mami Ndawa ñu ngi leen sikkimu ak taqwa waaw ak ki nga xam ne mooy bel waaw wax naa la rek tey bés bu mag la. Ah, boo xam ne tey xale yi bu ñu ñëwee dañuy delluwaat. Daaru Rahman moo nekk ci kanam El Hadj Omar moo tax ñu ngi def xel di def xalaat. waaw Daaru Rahman moo ah. nekk ci kanam. mi ngi jàpp mi ngi jàpp mi ngi jàpp mi ngi jàpp. mami eh. Baba moo génn. waaw dolli dawal nañ dolli ci aras bi. mais mais dawal nañu dolli ci aras bi El Hadj Omar. Amadou Diallo waaw. ñoo ngi ci rawante bu mag 2200 mètres la ñuy daw. ñoo ngi ci rawante bu mag El Hadj Omar 2200 mètres la ñuy daw. ñoo ngi ci rawante bu mag waaw ki nga xam ne mooy mami Baba moo nekk ci kanam. def nañu benn baax baax ñëw na na baax ñëw na waaye baax ñëw na El Hadji Omar ah, baax le numéro 4 ah, moom mooy fas yi nga xam ne mooy bel ah, bel bu Abdou Khadir Mbaye bel ñëw na bel ñëw na bel ñëw na ci kanam bel génn na bel génn na waaw bel génn na waaw bel génn na tey bel génn na bel génn na El Hadji Omar waaye baax ñëw na sikkimu ko waaw baax moo ñëw en deuxième position baax xale baa ngi tëdd baax moo ñëw en deuxième position le numéro 4 mooy bel bu euh, euh, Abdou Rahman Abdou Khadir Mbaye le numéro 2 moo ñëw en deuxième position président El Hadj Omar muy Mami Ndawa Mami Ndawa ñëw na jar ci aras bi waaw Mami Ndawa ñëw na dawal nañu Mami Ndawa jar ci aras bi waaw bañ na bañ na El Hadj Omar. bel bel bañ na El Hadj Omar. bel xel bi neex na. waaw ndawal eh, mami ndawal ñëw na ci kaw bel. waaw door nañu waaye bel bañ na. mooy numéro 4 bi. bel génnaat na numéro 2 bi mooy mami ndawa. bel génnaat na. ja génnaat na waaye dafa mel ni baax ñëwaat na baax tàkkat na El Hadj Omar. ca gannaaw waaw waaye eh, bel jox na leen ñaari longueur. bel li mu joxe sori na. jox na leen ñaari longueur. Eh, bel na bel jox na leen ñaari longueur El Hadj Omar. bel génn na bel jox na leen ñaari longueur leader bel génn na bel génn na ci kanam El Hadji Omar te bel kat moo ko war waaw bel xale bi ko war El Hadji Omar ah, bel xale bi ko war moom mooy euh, Ablaye Kassé Ablaye Kassé Ablaye Kassé moo ko ah, war Ablaye Kassé moo war bel Ablaye Kassé moo nekk ci kanam le numéro 4 le ah, numéro 4 bel moo jiitu ci kanam bu ñëwee dañuy téye bu ñëwee dañuy téye El Hadji Omar premier numéro 4 Belle monté par Ablaye Kassé deuxième numéro cinq uh-huh. numéro 5 Mambo King uh-huh. ah troisième numéro 3 entre numéro 3 ak numéro ak numéro ak numéro 6 entre numéro 3 ak bi bi uh-huh. moom mooy taxawaa numéro 6 bi mooy dolli dañuy xaar ñu départager leen ki nga xam ne moo mooy photo finish bi moo leen di départager xam nga nag hippodrome national Omar euh, jot na nag ndax bu ñuy wax amélioration génétique mm, am na mm. fas yu raw léegi mm. quinze cesième de cent la xam nga daanaka mën nañ wax ne pur sang la mhm. ndax dañoo jël euh, li nga xam ne moom mooy trois quarts mhm. boole koog étalon boo xam ne dafa jóge fële nga xam ne mooy bitim réew mhm. bi mu juddoo doom ji nekk quinze seizième de cent mu nekk amélioration génétique boo xam ne dafa am solo lool waaw xam gis nga xoolal ni bel rawee pap naka nga jàngatee li nga xam ne moom mooy rawante bi léegi euh, waaw jàngat naa course trois groupe trois bi nga xam ne bel moo raw nag doomu suñu fas suñu xarit la Abdou Khadre Mbaye di ko de passage waaw bel euh, Euh, di doomu Warxos. Mhm. Warxos di doomu Galileo. Mhm. bu ñu nee Warxos nag suñu xel dem ci étalon boo xam ne jaaroon na fi nekkoon équipe di ñu koy wax Masuk. Ah. moom ak Warxos ñoo bokk ndey. Mhm. Masuk di doomu Pivotal Warxos di doomu Galileo. donc Warxos mën na jur fas bu ne. donc bel aussi bokk ci élevage professeur Bao parce que yaayam Rose doomu Xudaa la. Xudaa mooy caatu maamu Kotunu quoi Xudaa moo moom ak yaay Kotunu ñoo donc c'est normal bel xaw. Saliou moo raw ci ndey Fatim moo raw ci bel mooy euh, dafa mel ni tey sa yaram dafa tàng. waaw père. waaw waaw waaw sa euh, jàngatal ñu rawante bi nga xam ne. def nga ko léegi xanaa dañuy wax waaw rawante bi rawante ma xam ne li ma yor daw. ma toog xoolal rawante bi. waaw maa fa njëkk a jugee. waaw boo départ laa am. ma xam ne bu ma ko toppee ci premier millimètre bi. moo mun naa am mun naa mun naa bañ am deuxième suuful. moo tax ma téye ko mu ràmb. Mhm. après ma dawal yàlla def ma raw. waaw tey am nga ñaari ndam Saliou. waaw waaw comme ni ko waxee sànq yow gëjoon ngaa raw. waaw gëjoon naa raw te amoon nga fi fracture. waaw gëjoon a dawal. waaw waaw loolu ah, am na tey fi mu nekk nii dafa mel ni tey ah. nag. waaw bëccëg bi sa bëccëg la. waaw loolu yàlla dogal kay. Mhm. waaw waaw. lan nga yëg ci bel tey lan nga yëg ci bel. non bel moom 15 16e de cent la. waaw moom moom moom tey dafa daw moom premier dimanche sax fi ngeen la am. waaw waaye tey dafa daw moom. dafa daw moom bu baax a baax te entraîneur aussi tamit liggéey ko lu Jili Mbay mi nga xam ne moom moom bel jël la nga nekk jockey d'écurie nga la ci ñetteelu bëccëg bi waaw di ko gërëm mhm. te parce que ma ba ma suuxee moom moo ma ñëw xelalaan ma mhm. waaw defaraan ma ba yàlla def tey jii ma am ndam maa ngi di ko gërëm waaw yow fan nga dëkk man maa ngi dëkk ñàgg rek mais fan mooy sa cosaan Daara Jolof waaw sama cosaan fa la sama waaw. Euh, El Hadj Xaasim euh, euh, tey tey yow mi nga xam ne yow yaa yor wàllu formation bi nga gisee première journée bi deuxième journée bi troisième journée bi ak war gi nga xam ne xale yi def nañ ko mooy la montée en suspension lan ngay wax. li may wax mooy damay kontaan rek. course yi na mu demee woon bu njëkk ak léegi soppeeku na. dëgg la donc bala ñuy commencer course dañuy def stage de recyclage. Mhm. formation wala recyclage yu jockey yi def recyclage yu entraîneur yi recycler également ñi nga xam ne ñooy commission technique bi su leen recycler ba ku ne xam fi nga xam ne mooy say ku ne xam say prérogative maanaam say wàllu wàll fi mu commencé ak fi mu yem say droit su boobaa nu ñëwee ku ci ne soo toppee li nga xam ne moom lañu la jox wala loolu la say droit yem alors du am benn problème ndax course dafa bari ay risque mhm. ndax euh, euh, gaañu wala war fas ak ni mu xel yi muy daw soo ci daanoo mun nga am problème mhm. donc foog ñu réglementé ko te réglementation boobu moom la ñuy jàngalaat xale yi di leen ci recycler toujours sax ngoon pour que ñu mën ko respecté ba mën a sàmm seen wér gu yaram. ñi ngi takk nag El Hadj Omar ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, groupe 1 bi groupe 1 bi ñu nekk nag ñu nekk nag. Euh, dix partants war a daw distance su distance su deux mille deux cent mètres xam nga numéro un bi moom mooy Auguste moo leen raw dimanche bi ñu génn euh, Auguste bu Riyaan Sidi Mohamed Niang mhm. numéro deux bi di Médina dafa def ci course de rentrée numéro trois di Magistrat moo jëloon deuxième journée bi nga xam ne moom lañ génn numéro quatre di Darou Sam moom moo jëloon cinquième numéro 5 di Faydou moo jëloon troisième numéro 6 di Damel Teeñ moo jëloon neuvième numéro 7 di Doumayeen moo jëloon quatrième numéro 8 di Daaru Khoudoos moo jëloon septième numéro 9 di Ñoddi moo jëloon huitième numéro 10 di Ngone Latir moo jëloon sixième waaye tey El Hadj Omar nekk na course boo xam ne Medina dafa ñëw daaw def quatre sorties def ñaari victoire ak ñaari placé ñoom ñoo war a daw li nga xam ne mooy ñeenteelu course. numéro un bi moom mooy obis propriétaire Yan Sidi Mohamed Niang jockey Mohamed Gadiaga corde numéro. numéro 7 numéro 2 Medina propriétaire Cheikh Ahmed Tidiane Sy jockey Momad Dieye corde numéro 8 Numéro 3, magistrat, propriétaire Cheikh Tidiane Sy, Jogé Modou Gueye, corde numéro 4. Numéro 4, Darou propriétaire Matarnian, jockey Mohamed Bamba corde numéro 2. numéro cinq Faydou propriétaire Idrissa Niang Joké Mbaye Dione corde numéro 6 numéro 6 Damel Teigne propriétaire El Hadji Malick Fall Joké Ablaye Kassé corde numéro 5 numéro 7 Doumayen propriétaire Ibokolé Bawo Joké Fallou Diop corde numéro Doumayen euh, numéro 1 numéro 8 Darou Khoudoss propriétaire Abdou Khadir Mbaye Joké Euh, Mbaye Diène Diallo corde numéro 3 numéro 9 Ñoddi propriétaire Dambawo jockey Sidi Fall corde numéro 9 numéro 10 Ngone Latir propriétaire Ngone Ndiaye jockey Alassane Seck corde numéro 10 10 partants pour une distance de 2200 mètres que le meilleur gagne dans le fair play et dans un esprit chevaleresque génn nañu El Hadj Omar génn nañu <laughs> gis naa gis naa ñu ngi jàkkaarloog ñun El Omar ñu ngi jàkkaarloog ñun wa nekk na course bu rëy ah, El Hadj Omar. Ah, Amadou Diallo waaw Amadou Diallo magistrat génn na. magistrat génn na El Hadj Omar. joxe na ñaar fukki mètre. waaw waaye Auguste ñëw na deuxième position. Auguste na deuxième position El Omar. <laughs> waaw Daaru Sam ñëw na. Mhm. Daaru Sam ñëw na ñëpp ñu ngi ne tekk. waaye magistrat moo nekk ci kanam parce que magistrat moo nekk ci kanam jokkoo bi ko war mooy Modou Dieye. waaw damaa yàgg deuxième position Auguste. <laughs> Auguste moo nekk en deuxième position waaye du ma yéen mi ngi ne tekk rek. waaye di leen bàyyi boo waxee Mamadou Dieye di nga gërëm di nga gërëm Kéba Dieye. waaw gërëm waa Kaolack yëpp. gërëm le président de l' assemblée nationale Moustapha Niass. waaw jox na leen <laughs> jox <laughs> ki nga xam ne moom mooy. xale ba nga koy moom mooy magistrat mi ngi koy waaye fas waa ngi bañ. xale ba nga koy delloo li mu jël moo bëri li mu jógee dafa bëri li mu jógee dafa bëri le numéro 3 mooy magistrat jox bi ko war mooy mooy Modou Dieye waaye Amadou Diallo rawante nañu ko teg ci waaw ndax 2200 mètres la daw te bu ñu ñëwee dañuy rombaate bu ñu rombaate dañuy dañuy dellu waaw magistrat moo nekk ci kanam deuxième position Auguste ah, ah, ah, Auguste moo nekk en deuxième position le numéro 1 waaw Auguste xanaa dafa dem fi mu dem mënatul a dellu gannaaw waaw waaw xob gisee naa duma yéen gis naa Daaru Xudus Daaru Xudus mi ngi ci biir mi ngi ci ligne bi waaw Daaru Xudus mi ngi ci ligne bi El Hadj Omar mais Daaru Salaam Daaru Daaru Salaam tu ne vois pas waaw waaw El Hadj Omar ah le numéro 7 duma yéen Amadou Diallo dox bi gaaw na de waaw waaw duma yéen dox bi gaaw na dox bi gaaw na duma yéen ñëw na dese na leen 1000 mètres Amadou Diallo dox bi gaaw na dox bi gaaw na El Hadj Omar duma yéen ñëw na <laughs> duma yéen ñëw na <laughs> duma yéen ñëw na en troisième position dañu dañu xëcc eh, Daaru Sam Daaru Daaru Sam mhm. Daaru Sam ñëw ñëw na El Hadj Omar. waaw damaa wax Daaru Sam ñëw na El Hadj Omar. damaa wax bu ñu daw fàtte ko waaw Daaru Sam nañu bàyyi xel bu baax a baax Daaru Sam. ah Tidiane Thiaras bi kan la Amadou Diallo. Daaru Sam la. Amadou Diallo am na ku Tidiane Thiaras bi de. Ah, Daaru Sam la numéro 2 bi la. <laughs> Medina la Medina la. <laughs> Medina moo jaar ci Aras bi numéro 2 bi. parce que rawante bi dafa jaxasoo. waaw Medina moo jaar ci Aras bi numéro 2 bi. mais ba tey yoo gisee ñëw na. waaw Medina moo jiitu ci kanam El Hadj Omar. Ah, ah. en deuxième position ki nga xam ne mooy Auguste. Auguste Medina génn na. magistrature jox leen benn longueur. Ah, ah. waaw ah. Medina génn na mooy numéro 2 bi. en deuxième position ki nga xam ne mooy Auguste le numéro 1. déedéet déedéet Auguste teg na ko Auguste teg na ko bopp na ko bopp rek. bi rawante métti na de. 200 mètres moo leen dese à bi rawante métti na de ci diggante waxtaan waaw eh, eh, ñu ngi waxtaan. daa mel ne ñu ngi wax. Obus moo nekk ci kanam. daa mel ne ñu ngi wax ñoom ñaar Obus moo nekk ci kanam. Obus hmm. moo nekk ci kanam El Hadj Omar premier numéro un Obus. Ah, ah. deuxième numéro deux Medina. Hmm. Euh, troisième numéro sept Doumayen. Ah, quatrième numéro trois. numéro trois Magistrat. Euh, cinquième numéro cinq numéro cinq Faydou. Hmm. cinquième numéro cinq Faydou. <laughs> waaw ki nga xam ne mooy Auguste moo jël euh, moo moo jël paie. Ah. Auguste jokke bi ko war mooy Mohamed Gadiaga. Hmm. waaw deuxième Medina. Hmm. deuxième Medina El Hadj Omar. rawante bu métti waaw rawante bu métti la doomu tëngeej la moo raw ñoo ngi wax ñoo ngi wan ngi waxtaan ak ki nga xam ne mooy Fallou waaw mooy Fallou mooy Fallou moo waroon duma yéen waaw xam nga ñoom benn la ñu mooy Fallou ngi wax ñoom ñaar ñoom ñaar ñi ngi wax Fallou moo waroon duma yéen waaw moo waroon duma yéen ñaar daanaan la ñu laari waaw waaw Mohamed xool fii loo doon wax ak euh, ki nga xam ne moom mooy sa confrère bi waaw kii sama coéquipier la waaw mi Momadou Dieye uh-huh. di crack joge uh-huh. comme man mm-hmm. yàlla dafa def nii bon ñun xamoon nañu sunu fas yi indi nañ état de forme bu jaar yoon mhm. préparé nañ leen li a boo xoolee préparation yëpp maam moom ñoo ko ànd mhm. soo xoolee ñaari fas ni ñuy dawee sax nga xam ne fas xamante nañ mhm. a comme course de rentrée lay def actuellement mënu ta sama fas après mu ne ma waa amul benn problème nañ ànd nii d'accord man xam naa ne mënu ma la raw léegi moom looloo tax ma ànd ak moom léegi mais diggante bi ñu ànd nii yëpp dañuy waxtaan quoi parce que ñun on est Eh, mo mo Mohamed yow dem nga France euh, war nga France mhm. euh, tey booy jàngat yow dem nga ay at yu bëree bëri France mhm. euh, nga war gi ndax mi ngi kii ndax yaa ngi bëgg a yàgg léegi nga def quinze ans ci li nga xam ne mooy métier jockey effectivement mhm. ma def quinze seize ba dix-sept mais dama sama dem France yokk na ci sama rawante lu bari yokk nañ sama façon de monde tamit lu bari mm-hmm. mais avant may dem yàlla dafa defoon tamit man ki ma jàngal war mu nekk ku nga xamante ni ñëpp dañ ko ràññee muy Pape Seck mm-hmm. mu jàngal ma lu nga xamante ni vraiment mm-hmm. euh, bu képp ku ko képp ku xool xam ni Gadiaga mii dañ ko jàngal di nuyuwaale au passage Moustapha di ko di ko ñaanal di ko ñaanal di ko xare di ko ñaanal Moustapha Bodian moom daanaka suñu métier yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp moom moo ñu suivre yàlla dafa jël na bakkanam fan yàlla xare ko aljana Mohamed Gadiaga ñoo ngi lay sant di la gërëm xam naa ne yaayam muy mat leen seen ma nga fële ca Jorga ak Cababa di ko seetaan di am mbégte ak soxnaam madame Gadiaga te yi jëkkëram moo jël li nga xam ne mooy premier ci li nga xam ne moom mooy euh, groupe groupe 1 bi ci Auguste Bouriane Sidi Mohamed Niang waaw El Hadji na Sina moom ancien jockey la. 2013 mhm. moom moo raw ci fas woowu nga xam ne mooy Daare Salaam. Mhm. léegi nag moom la jox rôle bi nga xam ne. suñu mag bàcc Diop moo ko yoroon ci wàllu jooke yi léegi moom moo ko yor El Hadj Mor ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di sant di leen gërëm ñu teewoo ko ay déwéni déwén yàlla def ci jàmm feebar bi nga xam ne moo nekk ci àdduna si yàlla jeexal ko. waaw course bi ma seetaan sànq tamit ak euh, premier tournée bi ak deuxième bi lépp jaar na ci yoon ci sooke yi. Mhm. ndax ñu ngi yokk góorgóorlu naa leen da ngeen di bokk ndey ak bàyyi ndax ku ci feebar ku ne sa dana la seet si ku ci gaañ nit. soo soo da nga seet sa morom te lii am polo moo xam ne mii da ngeen di am discipline discipline nag mooy jiitu lépp am yar am teggin ci rawante ci yoon ndax rawante dàq fas ba jot ko di ko jaar ci lii loola fa dal yaa ko teg sa bopp te man toujours loolu laa leen di wax naa leen bu ngeen jawootee fas ba jot ko dee leen ko teggi ndax rawante dafa doon loo xam ne lii fas bu mën a daw moom baax na ci lool waaye na rawantoo sa sago ak rawante sa wërsëg ndax première moom dëgg dëgg yàlla moo koy joxe ak façon bu baax ngeen yokk góorgóorlu bokk am jom dégg nga ma bokk ndey ak bàyyi. waaw kii kii ñu toogal nag moom mooy euh, Dollar Sarr Dollar mooy président commission organisation Dollar tey ñu ngi ci ñetteelu bëccëg bu comité national bi tey boo doon def de façon ramassée naka nga jàngatee ñetti bëccëg yi nga xam ne organisé nañ ko fii. li may wax ci organisation bi mooy vraiment progression li tubaab di wax di wax loolu mooy lan mooy dañu organiser première journée ñëpp félicité ñu à commencer par le président de la république le ministre DG Lonase président Cheikh Tidiane Niang ñëpp kontaan amateurs yi yëpp ñu ne ñun loolu taxu ñoo naagu et dinañ gën a progresser deuxième jour bi ñu améliorer d'une manière très sensible ba ñëpp xam ne améliorer nañ par rapport a première journée bi Mm-hmm. troisième journée bi tamit gis ngeen ko mooy tey mm-hmm. amélioré waat nañ mm-hmm. incha allah quatrième journée bii di ñëw buñ ci yàlla yóbboo dañuy dàbbali dañuy amélioré waat ba ñëpp xam ne amélioré nañ euh, cinquième course muy groupe 2 bi ñu nekk huit partants war a daw distance u deux mille deux cent mètres numéro un Taïf propriétaire Serigne Khadim Mbacké numéro deux Talisman propriétaire Idrissa Niang numéro trois Nasrullah propriétaire Ndioba Seck numéro quatre Euh, Salimar propriétaire Abdou Khadir Mbaye numéro 5 Miroir propriétaire Ahmed Assanti numéro 6 Srève propriétaire Oumar Bao Junior numéro 7 président Cheikh propriétaire Ibokolle Bao numéro 8 Ndindi propriétaire Ibokolle Bao ñii ñooy tëj nag li nga xam ne mooy journée bi muy groupe 2 bi ñu nekk nag huit partants war a daw di sensu 2200 mètres man bi ma amee cinq eh, ans allez-y allez mooy groupe 2 bi ñu nekk nag huit partants war a daw distance su euh, deux mille deux cent mètres waaw gis nga ko Diallo. waaw El Hadj Omar. Diallo xel yi gaaw na. xel yi gaaw na trop. xel yi xel yi gaaw na moo génn moom mooy. Ndindi Ndindi Ndindi moo génn. Ndindi génn na tey tey numéro ci moom. numéro numéro quatre bi tamit sëkkatal na ko. waaw Taïf moo sëkkatal. Taïf moo sëkkatal ki nga xam ne mooy Ndindi. Ndindi xàcc la. mais seen jàppante boobu xale bi war moom mooy moom mooy Saliou moo war Ndindi moo war Ndindi. waaw Baye Sall moo war Ndindi. moo war Ndindi gis nga ko de jox na leen ñaari longueur dollar. waa Ndindi lii moo génn. ndindi fasu kees la fii la juddoo moom mooy ex ale salaam. waaw Gallo Ndiaye papa Gallo Ndiaye moo ko suñu papa Gallo Ndiaye moo ko ah. juddulu suñu papa Ibo Baawo moo ko moom. waaw xam nga génn na dafa ah. gaaw. Ah, mais xam nga ñoom. deuxième position Taïf moo fa nekk numéro un bi. waaw mais Diallo mais Diallo mais Diallo ñoom dawaluñu. dawalaguñu non dañuy ràmb rek. dañuy ràmb mu dëgër la rek mais dañuy ràmb rek. dañuy ràmb rek. Hmm. waaye ndindi moom mi ngi kanam ba tey. waaw ndindi moo nekk ci kanam ba président Salimar Salimar moo nekk troisième position moo nekk troisième position Salimar. Amadou Diallo waaw El Hadj Omar. Ah, xanaa di gërëm bu baax di sant sama jigéen Aminata Mbengue Ndiaye xaalis. waaw Aminata Mbengue Ndiaye ku yàlla baaxal. ku yàlla baaxal. ku yàlla baaxal. Mm-hmm. waaw gis nga ko gis nga ni mu demee. di di ndéngi ci kanam ba tey ndéngi ci kanam. waaye Taïf moo nekk en deuxième position. waaw waaw fas yi ñëw nañ ci kawam. Mm-hmm. fas yi ñëw nañ ci kawam. yaa ngi gis Taïf yaa ngi gis tam talisman mooy xàcc bu weex. talisman mooy xàcc bu weex tàll bi. Hmm. Diallo Amadou Diallo daanaka euh, mënuñu ko bañ a tudd. Ah. muy sunu mag sunu xarit Mamadou Diané. waaw Mamadou Diané waaw waaye bi mu ñëwee la gars yi ubbi box yi. waaw waaw waaw bu ñu amee tuuti waxtu rek. waaw xam nga numéro ah, ah, numéro numéro 5 bi Mirwax mi ngi ci biir groupe bi. waaw waaw moom Mirwax mooy numéro 5 bi. te te c'est le favori de la course. mooy favori bi. waaw di wax rek ne bu ñëwee dañuy téye. waaw bu ñëwee dañuy téye romb nañ ñu bu ñëwee dañuy téye kon nañ xool bu baax. mais daf mais mais mais dafa mel ne fawri bi gaa yi am. tey xaar nekk ci kanam ba tey. waaw waaw waaw euh, ndindi trêve ñëw na. trêve ñëw na trêve ñëw euh, di laal geenu ndindi. waaw waaw bi ba tey gisagoo ko. waaw favori bi a ngi ci biir. waaw numéro 6 bi. waaw numéro 6 bi mooy trêve. waaw ñoom ñëpp dawal nekk ci ligne bi. mais Taïf ñëwaat na mooy moo nekk ci ligne bi. moo ah, dem na. Taïb génn na mooy numéro un bi dawal nañ Salimar numéro quatre. Salimar Salimar moo nekk deuxième position deuxième position Salimar troisième troisième position miroir bi ñu doon wax moo fa nekk. miroir bi ñëw na en troisième position. en troisième position waaw ñoom ñëpp dawal nañu. moo tax may la wax Omar dañoo jug jàpp mil mètres. waaw ñoom ñëpp dawal nañu. Mm, waaw waaw ñoom ñëpp ah, ah ci diggante ki nga xam ne moom mooy. Taïb eh, Taïb ak miroir ak miroir. Taïb miroir Taïb miroir. Salimar Taïb miroir Salimar troisième position Taïb. Ah, Taïb eh, eh, kii dem na miroir miroir dem na comme d'habitude waaw dem na dem na day raw day raw day raw day raw premier numéro cinq mille wax ah, raw na deuxième Saïd ah, ah. troisième Salimar quatrième numéro huit euh, eh, eh, numéro huit eh, Ndindi quatrième numéro huit Ndindi Ndindi moo jël quatrième xale xale yaa ngi waxtaan mm. lii mooy enjeu bi rafet lii mooy li ci rafet li ci rafet muy jokkee tey waaw Mohamed Gadiaga moom wax jokkee li wax Fallou Diop Fallou Diop magax rakkal li moo rafet magax rakkal li moo rafet li leen bëgg image yu baax lii bu amee ñu am lu ñu wax lii bu amee dinañ mën a reporter dinañ mën a liggéey mm. te duñu am problème naka ngay jàngate tey li nga xam ne moom mooy bésu tey bi ak huis clos bi ak huis clos bi course yi neex na waaw dama ñëwoon doon doon nuyoo si rek <laughs> pour laal ci soos bi bon bon bon am naa ci quatrième sama rakk laa indi mm. na ma sigil na ma premier jour ah, première journée waaw première journée bi mu ñëw def course de rentrée bi def def course de rentrée ah. loolu nuyoo la rek. leneen li ci des mi ngi ci kanam. Mhm. waaw tous yi nañ bokk ndey bokk bàyyi di mhm. mbir mi metti na mais lépp nañ ko te ci loxoy yàlla mbokki amateurs yi mbokki turfistes yi ñëwaloon nañ leen hippodrome Ndiaw Ma Codou Diop pour le compte de la troisième journée du comité national de gestion des courses hippiques nii le résultat yi tëddee ci PDA yi muy poulain de deux ans yi Ndeye Fama Der moo raw bu Louga ci PTA yi euh, muy poulain de trois ans yi Lat Fatim moo raw ci groupe 3 bi Bel bu Abdou Khader Mbaye moo raw ci groupe 1 bi Auguste bu Riyaan Sidi Mohamed Niang moo raw ci groupe 2 bi Miir wax bu bu lu écurie lamb faar moo raw lii la leen jëlee leen fi nga xam ne mooy hippodrome Ndiaw Macodou Diop de Thiès pour le compte de la troisième journée du comité national de gestion des courses hippiques di leen jox dig daje dimanche bii di ñëw incha allah direct lay doonaat ak la 2STV la la la télévision autrement ñuy gërëm nag techniciens yi di gërëm ñi nga xam ne ñooy chauffeurs yi waaye di gërëm nag ñi nga xam ne ñooy caméraman yi ci liggéey bu rafet bi nga xam ne def nañ ko El Hadj ñu leen di jox dig daje dimanche bii di ñëw incha allah.